wanfanaa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatanaa wa ilayhi nushur ginnaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa taala noo ngi julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam réew Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci émission waxtaanu fajar bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé mbokk yi gannaaw bu ñu santee buur yàlla su ma ñu waroom subhaanahu wa taala ñu fas yéene ànd ak yéen ci beneen bunt bu bees ba ñu war jokk ci buntu bu weesu woon yéenaa ngi fàttaliku ñu ngi taxawoon ak yéen ci suñu waxtaan yu mujj ci li nga xamante ne mooy loraange ba làmmiñ di def ci pénc bi waaye mu doon jumtuwaay wi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko yënkeewal doomu aadama bi mu baaxee ko ko ko kom comme cadeau mu nekk kawtif boo xamante ne doomu aadama yu bari tey jii niñ koy jëfandikoo bokkul ak la tax yàlla jox leen ko ba tax na boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullah bokk na ci laayee biir yamu doon laayee biir pencum jullit ñi waaye mu jaglel ko mboolem doomu aadama lam ñu laayee biir moom boroom xam-xam su jooju di xasanul basri yal ko buur yàlla yërëm nee na ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yawmun zahaba baaduk xasanul basri rahimahullah yal na ko buur yokku yërëmande moo laayee biir pencum jullit ñi rawatina doomu aadama bi ci boppam mu fàttali la ne la ibnu aadam yow doomu aadama bi ibnu aadam yow doomu aadama bi ah boroom xam-xam bi di xasanul basri moo lay jox conseil bi nga xamante ne danga ko war a bàyyi xel wottu ko settantal ko bàyyi ka xel bu baax a baax moo tax mu ne la ibnu aadam yow doomu aadama bi innama anta ayyaamun xamal ne bés ya nga nekk di dund fii ci kaw suuf mooy bés yàlla fi tax a nekk mooy bés yàlla fi tax a toog mooy bés yi nga xamante ne bés yooyu la yàlla baaxee ngir nga dund ko ba tax na ngalla waay na sa xel kullama zahaba yawmun bàyyil xel ni bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduk am na la deñ ci sa dund am na bés boobu lu yóbbaale ci dund bi nga nekk di ko dund ba tax na bés boobu nga nar a dund bi sallallahu alayhi wa sallam moo la baaxee ne la ba yàlla may la bu mel ni nga war a dund bés boobee la njëkk la nga war a def mooy bu la yàlla wërsëgalee delloo la sa ruux na sant yàlla anam bi la ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi te moo ne subhaanahu wa moo yónni yonent boobu mu ñëw defaral ñu suñu pencum jullit bi anam bu mu gënee mucc ayib waaye mu defaral ñu suñu pencum jullit bi anam bu mu gën a jekkee yonent boobu di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ci xadis bañ leen bëgg a ni mu ne ñu bés ba doomu aadama bi yeewoo ci kado bu ko yàlla te muy nelaw lam ci war a def mooy na sant yàlla na sant yàlla wax ne alhamdulillahi ledi mboolem xeetu cant yi ñeel nañ ndax mooy buur wi nga xamante ne axyaana moo ma may occasion ba ma fekkee bés bi ma di ko dundu baadama amaatana gannaaw bu mu dogalee ci sama jëmm ji dee ndaw te mooy nelaw te wa ilayhi nusuur ci moom yàlla lañuy ñuy dellu keroog bu ñu jógee ko ci kaw suuf si bu dee jullit bi jamono yu weesu lañ doon def mooy nelaw te mooy dallu borom bi tabaraka wa taala yénkee wal ko mu nekk wa ja'alnaa nawmakum subaatan mu nekk nelaw joo xamante ne borom bi ko baaxee ngir ñu dalloo ci nelaw boobu moo tax bés boobu nga war a song boroom xam-xam bi di imaam xasanul basri rahimahullah mu ne ñu yow doomu aadama innama anta ayaamun xamal ne bés yay ñëw di jaar di jàll moo la fi tax a ba tax na nga war a bàyyi sa xel ne kullama yow yawmun bépp bés ba jaar ba wéy bés boobu boo xamee ak boo ko xamul zahaba baaduka am na lu mu yóbbaale ci sa dund kon loolu mu yóbbaale sa dund bi sa temps bi dem na gën ngaa jege bàmmel gën ngaa sore dund donte ñu ngi ñaan yàlla fan bu gudd waaye bépp bés ba ñëw tiim la jël la nga dund ci biir bés boobu mu yóbbaale bés boobu ak sa nekkin ak la ngay wax ak la ngay jëf ak fa ngay jëm moo xam lu baax la moo xam safaanu lu baax la waaye bés boobee keroog ba jant bi soowee la yóbbaale sa nekkin ba nga nekkee woon ci bés bi ba tax na na nga bàyyi xel na ngay nekkee ci bés boobee moo waral nga war wax lu baax ci say làmmiñ moo waral nga war a jëf ju lu baax ci say cër ba tax na tey ñu fas yéenee jokk ci bunt boobu waxu boroom xam-xam su mag ki nga xamante ne mooy abdullahi bun awn rahimahullah qaala abdullahi bun awn rahimahullah abdullahi bun awn nee na dikru nnaas daa'un wa dikrullah dawaa'un abdullahi bun awn nee na dikru nnaas daa'un di tudd nit ñi di tudd li nit ñi neena na loolu tooke la loolu cànkute la mbon la lu baaxut la lu kenn dut mën a cautionné la allahumma lu dut mu nekk lu baax waaye raal na nit ki di tudd ci moroomu doomu aadamam rawatina ci jamono bu ñu nekk nii lu baax ba tax na keroog moom bum doon laayee biir nit ñi dane zikru naas di wax ci nit ñi di wax ci ayibu nit ñi di wax ci deru nit ñi nee na loolu daa un tooke la daa un loolu lu ñaaw la lu kenn du mën a valider la te làmmiñ koy def kon bañ a tudd nit ñi fu ñu nekkut bañ a deru nit ñi bañ a tàllal sa làmmiñ ci deru nit ñi loolu muy li gën su waaye am na leneen li fi nekk lu baax am na lu fi nekk ci lu baax te làmmiñ bi war tudd moo tax mu andil la ñaareelu pàcc bi mu ne la wa zikrullah dawaun tudd yàlla nag garab la buy faje tudd yàlla nee na loolu mooy garab bi nga xamante ne day faj li ci xol yi mooy lay faj feebar ya ci xol yi mooy faj tawat ya ci jëmm yi tudd yàlla da di comprimé walla médicament yay faj jàngoroy soxor tudd yàlla moy médicament way faj jàngoroy kiñaan tudd yàlla mooy médicament bay faj jàngoroy siis tudd yàlla moy faj jàngoro bi nga xamante ne mooy rëy tudd yàlla mooy médicament bay faj jàngoro ñàkk xam mu xàllil yoonu leer yoon bu leer bi nga xamante ni mooy doon yoonu xam-xam bu leer tudd yàlla mooy médicament bi nga xamante moo lay faj jëlee feebar yi ñu tudd nii bi nga wér ci feebar yooyu ba tax na abdullahi bun awn rahimahullah mu ne yow nit ki yow doomu aadama bi rawatina yow jullit bi bul jël sa làmmiñ bi di ko tàllal di ko boyal di wax ci deru nit ñi nee na loolu tooke la loolu poson la loolu jàngoro la loolu lu ñaaw la loolu kenn waru koo kenn waru koo validé amma leneen li fi nekk te mu di lu baax mooy zikrullah moo tax mu ne la wa zikrullahi dawaun wa zikrullahi dawaun la buy faj feebaru jàngoro bu ñu naan rëy tudd yàlla da di médicament buy faj feebar bu ñu naan soxor tudd yàlla day faj jàngoro bu ñu naan siis tudd yàlla da di médicament bi nga xamante ne day faj day faj feebar bu ñu naan soxor rëy siis fuy ñàkk xam sa bopp tuddi yàlla day faj jàngoro yi te jàngoro yi nag bu ñuy xool populason doomu aadama yi ci jamono ji ah waxuñu ne jàngoro ji ñépp la dalde waaye ñu bari ci nit ñi jàngoro bi dañ ci nuur taq ci rip kon képp koo xamante ne bëgg ngaa génn ci jàngoro jooju bu dee yang ñuy bàyyi xel di topp suñu waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 du ñàkk nga jëlee fi li nga xamante ne dinañu bokk njëriñu si rawatina médicament bay faj jàngoro siis jàngoro rëy jàngoro fuy jàngoro soxor ak jàngoro yëg sa bopp kon bu dee tudd yàlla di bàkk yàlla di xañ yàlla di ko màggal di ko sàbbal bu dee loolu mooy médicament yay faj jàngoro yiñ leen limal ni kon yan lañu yàlla may làmmiñ jay tudd màggaayu yàlla saa su ne yal nañu yàlla may làmmiñ jay sabbal turu yàlla saa ñu di ko ñaan moom buur bi tabaraka wa taala an yarzuqana lisaanan shakiran dhakiran ñu ñaan buur bi tabaraka wa taala yal nañu yàlla wërsëgal làmmiñ ya koy sant saa waaye yàlla ñu yàlla wërsëgal laa meñ ya koy tudd saa ngir ñu am médicament wi nga xamante ne mooy faj jàngoro yu bon ya seytaane di installé ci xolu doomu aadama benn mooy rëy ñaareel mooy fuy ñetteel mooy soxor ñeenteel bi mooy siis juróomeel bi mooy kiñaan ak li ni mel bu dee feebar yi ñu lim nii tudd yàlla mooy médicament yakay faj kon kenn ku nekk ci ñun na xool wan turu yàlla mooy jàppandi sama moom mu di ko tudd saa su ne ngir yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu tàqale ko jàngoro yañ leen limal nii moota tax boroom xam-xam bi di abdullahi ibn awn rahimahullah nee na zikru dawa aw zikru naasi daa naasi daa un di tudd ay nit ñi walla di nekk ci ni der loolu jàngoro la feebar la lu ñaaw la képp ku baax waroo koo valider waaw te làmmiñ moo koy jëf làmmiñ mooy nekk ci deru nit ñi nee na loolu làmmiñ di nekk ci deru nit ñi loolu jàngoro la feebar la waaye nag pourtant am na leneen lu fi nekk la làmmiñ bi wara a mën a jëfandikoo te loolu moy lay faj jàngoro bay nekk ci jëmm jooju mooy ban médicament mooy wa zikrullahi dawaun mu ne waay xam leen ne tudu yàlla de loolu mooy médicament bi nga xamante ne mooy faj lépp li nga xamante ne jàngoro rëy la wala jàngoro soxor wala jàngoro kiñaan ba léegi borom jikko ju rafet boobu di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam ci sahabatul kiram ridwanullahi ñamu yar ci jikkum yu matale woowu sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain bi yar ci jikkoom yu kawe yooyu kenn ci sahaaba yooyu di ibnu mubaarak radiyallahu anhu dañ ko ne dañoo bëgg nga tënkal ñu résumeel ñu la nga xamante ne mooy jikko ju rafet abdullah ibnu mubaarak radiyallahu anhu nekk fi di lim di wax lu gudd te dañ ko ne qiila li ibnu mubaarak ijma lana xusnul xulq fi kalimatin qaal tarkul gadab tarkul xadab ibnu mubaarak dañ ko ne dañoo bëgg nga tënkal ñu jikko ju rafet ci benn kàddu rekk qaal ibnu mubaarak ne leen tarkul xadab na nga bay di mer ku la xool nga mer ku la def nga mer ku la wax nga mer ku jëflante ki yow nga mer xol ba yaatu ba nga war a yor gaaw a mer gaaw a gis sa bopp tax na sa xol nekk xol bu ndaw doo tolare kenn ci lenn loolu bokkul ci jikko ju rafet lu la waay def nga gis sa bopp daf ma xeeb lu la waay wax nga gis sa bopp kii daf ma doyalal la nga jëflanteeg waay nga gis sa bopp ne kii respeguma gu kañ moone loolu nga defe ne ñuñ la kay def nit ñi mun nañoo gis def boobu ci yow ñu ne la yaa kay def kon su boobaa kañ la penc bi di jakk kañ la nit ñi di noppale ko ci giita ŋaasa kon ibnu mubaarak keroog buñ ko ne nang ñu tënkal nang ñu résumel jikko ju rafet ci benn baat képp ibnu mubaarak nekku fi di wax ne nanga nga li ngay julli waxut ne na nga bëri li ngay woor waxut ne nanga nga li ngay saraxe wala li ngay joxe azaka walla li ngay jàng alquran déedéet ibnu mubaarak tënk na jikko ju rafet ci benn kàddu mooy tarkul gadab nanga bàyyi di mer rawatina gaaw a mer nga boobu ñaar la kii waxul la ne nanga nga bàyyi gaaw a mer daf ne la bàyyil mer tout court gaaw a mer yiix a mer nee na la daal tarkul xadab bàyyil mer tout court bu gaaw beeg ba nga yiix a def ba ngay waaj a defak ak ba ngay def si lala boole mu ne la bàyyil mer tout court na defu nit ñi na nga muñal nit ñi nang leen comprendre ci seeni nekkin nang leen comprendre ci seeni situation waaye nag ñun dañuy jël wax ji orienté ko ci kilifa yi nga xamante ne ñoom la yàlla dénk responsabilité moo xam kilifa yi kër la moo xam kilifa yi njaboot la moo xam kilifa ba nekk ci société ba moo xam kilifa ba nekk ci administration bi moo xam njiitu réew bi xattaa xusnul xulq ba ibnu mubaarak tënk ci kàddu bu gàtt ci benn kàddu mooy tarkul xadab mbii co mbalaj nga ne nga manifeste ko doxe ko wone ko ba am ñu naan muñal jéggal ko lu ko fi jar moo ne boo ko xamee ak boo ko xamul yaa ngi merloo nit ñi te nit ñi ñu ngi lay toléré ca la leen di merloo waxuñu la ko merewuñu la gisoo ko ci ñoom lu tee nga mel ni ñoom lu tee nga mel ni ña ngay merloo ñu di la comprendre di la jéggal lu tee nga mel ni ñoom waaye yow doo toléré dara ku juum wax la sax voilà nga bëgg a tukkil àddina li ko fi jar jaru ko kon xoolaatal jikko ji kon nañ leen bokk xoolaat suñu jikko ji nga déggee ci ne yow boroom kër gi na nga tolare soxna si ak caprice ya ko yàlla mooñaale waaye yow boroom kër gi ba léegi na nga tolare emploi ya nga employé na nga tolare kay daan dooleem ci kër gi nanga tollare ña nga dëkkal ci appartement bi ci kër gi ci bâtiment bi ci koñ gi nang leen tollare lañ lay merloo te yëguñu ko su ko defee nga mun a ràngoo tiituru jikko ju rafet comme na ko boroom xam-xam bi di ibnu mubaarak joxoñee ci kàddu bu sell ba mu laayee biir askan ndax ci jamonoom da di kamfóore ci jamonoom da da ku yiw ci jamonoom da di saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa ba tax na keroog buñ ko laajee ñu ne ko ijma lana dañoo bëgg nga résumil ñu tënkal ñu xusnul xulq jikko ju rafet fii kalimatin ci baat bu gàtt rekk lañu bëgg nga tënk ko qaal ibnu mubaarak ni leen tarkul gadab bay mer de ñàkka mer dafa bokk ci jikko bu rafet yu kawe yan nañu ko yàlla déggaloo yan nañu ko yàlla manloo kon bu fekkente jël nañ xadis bi teg ko suñu kanam ñu di ko niitoo ñu di ko barkeloo ñu di ko doxe mu doon lañuy ñuy ci suñu dund bi waaye nag ñu jël turu yàlla di ko sàbbal saa su ne di fàttaliku turu yàlla yu kawey ak màndargay yu kawey ngir mu doon médicament bay faj suñu jàngoro ya nekk suñu dënn yi di jàngoro yi soxor jàngoro siis bu ñu jëlee ñaar yi doxe ko inculqué ko suñu dund géem koo installé ci suñu dundu suñu jikko yi mooñaale ak ñaar ñi tudd yàlla mu doon médicament bay faj suñuy jàngoro feebaru rëy siis bon soxor kiñaan ñu jël ñàkk gaaw a mer doxee loolu ci weneen anam jëmm jooju day doon jëmm ju mucc ayib kon yal nañu yàlla boole may dégg topp nasaluhu tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana mbokk waxtaan bi jeexul dañoo yegg fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nar a jébbal bërëb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yaxfada bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan allahumma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulaata umuurina allahumma ixfada bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan allahumma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulaata umurina amin ya rabbal alamin baarakallahu lii wa lakum fi lqur'ani alazim wa nafa'ani llahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfiru llaha lii wa lakum min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwa algafuuru rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa barakaatuhu wa barakaatuhu